contacté man leen mën naa leen a wutal foofu autorisation pour ngeen mën fa dem après laa contacté sëñ boobu doon jot li mu ne mën nañ ñëw mais nag ñoom li ñu wax mooy néewuñu carrément ngóor jigéen lañ ñëpp jaale foofu noonu dañ ne boo ñëwee dañ lay proposé lii ak lii. da ngay fen kenn proposé da ngay kàcc kenn du la proposé Amérique kenn du proposé waate France kenn du proposé waate dañ lay laaj indi lan moo la dawloo sa réew indi la fi nga expliqué. bu dee da ngay dañ lay làkk ban làng nga bëgg a waxee wolof wala joolaa wala français wala mbandenke lépp nga fa lu ma soxla mun nañ la dem wuti traducteur indil la ko da ngay kàcc kenn du la wax ne doonal lii wala doonal laa da ngay kàcc da ngay fen da ngay fen da ngay ñun bu ñuy ñëw fii boobu saxagoo karaw nàq sax saxagoo ko bu ñuy ñëw ci bu ñuy wër ci Amérique bi di wër ci àdduna bàyyi kàcc du la wax looy doon ne ko yéen naka ngeen mën a xamee loolu sax or antenne laa ko def sans ci média laa ko ne naka ngeen mën a xam ne foofu loolu lañ lay proposé pour nga jàll wala nag la <laughs> ñu ne ma boo ñëwee foofu am na ñu fa nekk ñu min ñu min secteur boobu wala ay sénégalais yu fa nekk yoo xam ne ñoo lay defal avant ñu lay jël ñoo lay wax carrément ne la lii la buñ la laajee boo ko waxee mën nañ laa bàyyi nga gaaw a jël muy ñu ne muy muy muy ñu ñu laaj la ngeen dama am jafe-jafe politique suñ dëkk moo tax ma daw waaw wala problème mu problème mu mariage la moo tax ma daw wala dëkk ba daa am ay xeex ak yooyu moo tax ma daw beneen bi itam ak uh, ak ak ak borom ñaari tur yooyu noonu. waaw nga ko proposé nga. kon kay wax na loolu bëri. wala nga wala wala man xam nga daal ni ñu ko expliqué bàyyi daal. Hmm. yooyu yëpp ci yooyu la bokk. Hmm. pour ñu bàyyi la gaaw ci gàttal daal ñett yi ñu waxoon ne moom nga wax pour ñu gaaw laa nga jàll mooy nga ne problème mu politique la ñu am. waaw wala dama am problème suñ dëkk moo tax man du fa nekk moo tax ma ñëw fi. wala nga nangoo accepté nekk euh, ngóor jigéen wala nga nangoo bàyyi sa diine ñëw seen diine. yaa mën a sa diine ñëw seen diine kii mën a fan. <laughs> yéen waa Amérique yéen waa Canada yéen waa France mus ngeen dëgg ni nit dafa bàyyi diineem dem ci beneen diine ba boo ko defee ñu ñuus la xanaa ña xanaa waa diine boobu noonu ku bàyyi sa diine dem ci beneen diine ba na amul ci dëkk ba kon boo doon boo bàyyee musulman doon chrétien <laughs> day tax Sénégal ñu rey la. dafa am kuñ ci dóor ba rey ko ku xam ne dafa bàyyi diineem ñaata ñoo bàyyi seen diine doon chrétien ñaata ñoo doo bàyyi seen diine doon ay musulman kuñ ci rey kan lañ ci persécuté rey ko wala mais yow kii kii mën nañ fen de non gis ngeen booy yi nag dañ leen war a arrêté. jaa ta ta ta ta réew mi yëpp ay kàcc la. lu kii la lu yomb kalaate la boo ko foo ko tut rek mooy gën a bari coow mais boo boo xoolee eh, sëñ bi moom précisé wul leeral loolu lépp te nangul <laughs> naa ko ko parce que amul woon temps pour mun a leeral loolu lépp léegi moo tax moom mu xool nu mu ko tenke noonu rek ah mu tënk ko daal fenal leen mu tënk ko daal fenal leen déggal nee na sëñ bi mayu ko woon temps léegi moo tax booy boobu tënk ko fenal leen daal ne leen sëñ bi ña fa dem toog ñooñu dañoo yàq daru dañoo wax ni góor jigéen lañ dañoo yàq diine islam kon donc noonu la ñuy tënkee ay wax daal ay wax noon ngeen koy tënkee génn yéen daal di ngeen jàpp ni ñu fa dem yëpp ñooñu kenn kii ay góor jigéen lañ ak ñu yàq changé seen i diine mais ñi mun nañ fa <laughs> la ilaha illallah cttt gars yi maa na la noonu ci boppam ñi def la ci boppam dégg naa leen ba tey ñuy métitlu météo na communication bi baaxul parce que ñi jot a jàll ba pare buñ déggee ñu wax lii dañuy jàpp ne dañ leen ko soxorewul dañ leen ko yéenewul mhm. te du ñëpp la affaire ngóor du ñëpp la ñuy proposé loolu pour ñu jàll expliqué ma comme li nga nii nee naa nee sax am na ñoo xam ne sax dégluwuñ leen te jàll nañu mhm. parce que loolu gis la nit mën na ci am sens mu métti ca kër yom ca yow ñu ngi war a réer ngay jën bañ doo bàyyi bañ dem nga damal jàll ci sëñ bi comme da ngeen a mën a fen rek wax dëgg yàlla war nañ koo dénoncer war nañ koo partager ba ñëpp jot ko parce que ñii li ñu def dañuy jël nit ñi di leen jaxaseeg seen ay jaboot di leen jaxaseeg kilifa yi xam nga ni sëñ bii ñu ñëw jàkkaarloog moom di ko wax loo nga xam ne dara du ci dëgg lii lu ko gën a ñaaw amut man man tey. Sarr maa lay ziar waa ci yoon wi nga xam ne am na beneen yoon wu naq tur wu naqari daal la ñoo bàyyi ko woon fii jëp Amérique biñ demee ba àgg Amérique dañ leen a téye ci camp lu toll ci weer ba ñaari weer ba ñetti weer waaye nag ngir ñu bàyyi la nga dugg dafa am ay sart yoo xam ne sart yu yéeme la mbàkke mooy tax ñu bàyyi la nga dugg ba ca jiitu mooy da ngay fas yéene doon borom ñaari tur yi allah ba ca topp moo di da ngay bàyyi diine lislaam nekk jeneen diine ñooy tax ñu bàyyi la nga dugg ci biir ñoom nag xaaj bi dugg nañ ñoom ñii ñu ne ay jul ay waay xool jàmbaar lool ñoo wax ne na dañoo ñëw mbàkke <laughs> sàkku si ñaan nga ñaanal leen laataa ñuy dem lañ amoon jaay ko dem bañ demee gis loo xam ne neexul yàlla neexul yum neexul sëñ Tuubaa ñuy bisuwaat bëgg nañ Mbàkke nga ñaanal ñu am lu gën lañ amoon loolu rek moom la war a wax yéen yàqu na rek Seydina gis ah. du dëkk quoi lu tax may wax loolu non Sénégal du dëkk non Sénégal jaaxaan kese fay dox ay kàcc kese fay dal ca Sénégal daal nit ku baax mënu fa tekki nit ku sérieux mënu fa ca Sénégal yëpp ay duule ki dajale la ay xool leen kii fi <laughs> nee na ñaar ñii ay jàmbaar lañ parce que ñee <laughs> ña fa toog góor si <laughs> déglu leen waaye parce que man lii man rek mënu ma ko déglu nañ ko déglu waaye chat te man maa ngi doog comprendre lan moo tax booy am lu leen métti ah wax dëgg yàlla war nañ koo dénoncer war nañ koo partager ba ñëpp jot ko parce que ñii li ñu def dañuy jël nit ñi di leen jaxaseeg seen ay jaboot di leen jaxasee kilifa yi xam nga ne bii ñu ñëw jàkkaarloog moom di ko wax loo nga xam ne dara du ci dëgg lii lu ko gën a ñaaw amut man man tey. Sarr maa lay ziar waa Sarr avance ci yoon wi nga xam ne am na beneen yoon wu naq tur wu naqari daal la ñoo bàyyi ko woon fii jëm Amérique biñ demee ba àgg Amérique dañ leen a téye ci camp lu toll ci weer ba ñaari weer ba ñetti weer waaye nag ngir ñu bàyyi la nga dugg dafa am ay sart yoo xam ne sart yu yéeme la Mbàkke mooy tax ñu bàyyi la nga dugg ba da ngay fas yéene doon borom ñaari tur ba ca topp moo di da ngay bàyyi diine lislaam nekk jeneen diine ñooy tax ñu bàyyi la nga dugg ca biir ñoom nag xaaj bi dugg nañ ñoom ñii ñu ne ay ju ñoom ñoo toog nii di ay jàmbaar lool ñoo wax ne na dañoo ñëw Mbàkke sàkku si ñaan nga ñaanal leen laataa ñu dem lañ amoon jaay ko dem bañ demee gis loo xam ne neexul yàlla neexul yum neexul sëñ Tuubaa ñuy bisuwaat bëgg nañ Mbàkke nga ñaanal leen ñu am lu gën lañ amoon loolu rek moom la war a mu ne la ngeen ci amee ci baatin ay waay moo amee téeméeri yoon moo ëpp téeméeri yoon la ngeen doon wuti. oh xoolal nañ def sëñ bi rek kilifa gu day nii xoolal nañ ko def caay xoolal nañ def kilifa gii rek ndeysaan kilifa gi toog ay mbootaayu fenkat dajaloo dem toog fa fen fa fen yoo xam ne yàq deru ñeneen ñi toog pertuloo sëñ bi taam di kàcc ci ay noppam mais am na ñu ñi yàlla de mun suñu réew mi defar ko dina metti xool leen li ñaaw lii rek li booy yi def oh ja ja ja ja leen li ñu def ci rusuñu sax sëñ bi ay waay ndeysaan c'est triste. si des na dina ñëw incha allah mu ne na ngeen ko xamee noonu baax am réew nii ku ci sañoon tey jii duggaat barki alxuraan karim ñoom ñii ñëpp dañuy fen ñi dem ci këramu sëñ bi nii di wax lii yëpp dañuy fen dañuy duul. parce que tey jii nii bu ñëwaatoon ci kaa ñoo leen góor jigéen lañ barki alxuraanu karim ñu wax ko daal di dugg de dem seen yoon. donc booy li métti na leen trop ñu dem booy bii nag moo ko jiite ay kat fenkat yaa ngi nii dañuy wër di taxawaa di fen rek di fen di fen di fen di fen rek ñu continuer. waaw gis nga booy bi da doon toog di tiit di ñaan pour dugg <laughs> wax histoire am munu làkki français bu baax ñu takk ko mënoote sànni muy wër di yàq deru ñeneen ña wala Sénégal du avancé ay ay ay ay surtout Antoine ñàkk jom lañu yor ak ay surtout euh, euh, kii lu mu tudd euh, Ismaïla Madior Fall booy Sénégal du dem non jiw ma ko si bi comprendre gul de waaye dina mos a comprendre dama yaakaar ni ñu dafa a ci yoon wala dañoo xamante ni li xanaa lu ma day law te leeral yi dina yeggaat seen ci jàmm looy wax may nekk lu leer si biir waaw ah, man mii di wax ak yow xam naa ay jëriñ yoo xamante ni <laughs> ci wàllu suñu champs yi bi rek xëy na suñ jotee ci lii dana ma leer eh, doon ñu suñu bloc suñu champs yi dinaa ko leeral mbir mi nga pare nga nekk mbir mi buñ ko ñëpp dina demaat bi si incha allah na def daanaka rek ñu jërul wax na nekk luñ dëgg rek. Bola Edo Sadio quoi munoo bàyyi Sadio bàyyi Sadio mu nekk si jàmmam amee Sadio affaire loolu la man daal saa yéen xam nga problème bi da ngeen dem a liggéey te nit nag munoo bëgg di liggéey rek xam nga bëgg di tontu teg gars yi man nag ma doon su ma doon conseil mooy jarul sonal sa bopp liggéey liggéey li nga xam li nga xam xam nga li importance mooy say jegewaay lu nekk xam man de wax dëgg yàlla bu doon man la. ku ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg même bu ñuy wax naan ñëpp kii ren di gis ku waat ne kii bàyyi maas mi bokk si loolu moo koy pourtant nga nit doomu aadama fexeel ba sa diggante ñi nga xamante ñoo xam xam benn caractère boo xam ne xam ne yow mi doxoo si ñàkk fayda te góor yàlla du lay loolu moo koy importance lépp waaw tey boo waree mel yow Sadio ni nga war a mel sa koñ ñëpp bu ñëw ñu dugg États-Unis yëpp li moo leen fa dugal ñoom dañuy taxaw teg seen kaamil saaga bokk si te loolu moo koy important si ay détail la man de su ma nekkoon si boobu xam naa ne man ñi ma xam boo xam moom koñ wala ñu dëkk man ma jëflante ak ñoom ñooñu sax taxaw ñu leen wax ne leen man lii moom fi dugal wala nangam sangam ñu ñëw taxaw naan dañuy dute wala di am kii parce que xam nañ ma quoi loolu moo koy importance waaw. waay bilaay mbës bilaay walaay maas. maas maas maas ñi ñii ñii dañuy def baaxul war na alxuraanu karim léegi rek laa koy nettali sama soxna mun ma man kay dama la cee waxul dara waaye loolu mooy lëmbe dëkk bi fi nekk nii dafa ñaaw mënoon nanoo yam sax ci télé yi mais dem ba jàkkaarloo ku tedd kii di yëkkati yi wax xam nga dafa ñaaw ñaaw na torop ñaaw na torop wallahi na si di sos la nee na yàlla bëri na sutura yàlla bëri na sutura nekk na nekk ci li nga war a nekk rek gëm sa bopp xam ne tey ji li nga defoon ñëw fii nii xam nga yaa ko rayante te lu ko raw maa nga ko amaat parce que alxuraanu karim am na ñu ñëw fii nii tey am na ñoo xam ne gaal gi leen jël bi ñëwee càppa colaa di satt booy dee nañ ci yoon bi xam nga ñoom waroon nanoo mën a natt seen bopp ci ñooñu tey imagine nga yoraat sa bakkan mais daal yàlla baax na quoi lii kay booy boo bëggee dégg dëgg mais dara xëñ sëñ bi dinañ ñu jaxasee nag suñu ay jaboot mais sëñ bi de moo leen gën a xam maanaam li ci seen xol yi ñoom sañ bi leen gën a xam li ci seen xol ñii non oh, non di baaxul yow li nga def waroo ko def am loo xam ne naay sut am loo xam ne diifu góor yàlla barki Seexul Xadim na dama laa weddi yow wër na Serigne Touba yow Baye Fall da ngay a nekkul ci yow yow gëmoo Cheikh Ibra yow barki Alxuraan Karim booy nag dañ ko tànc quoi dañ ko tànc dafa am lu leen booy dañ waa ji dafa mën a fen def lépp lépp nag xam nga lan la. ndeysaan dul dul naa li si ñoo leen di ñoo leen di jaay nii lañ def ba Cheikh Cissé saaga yàlla saaga yàlla laa la wax naa ay di fël falaale Eh, eh, di xat ar gimtee ci rek ndawal di arwatam di ay eh, waay yow ma sa waay day foo yàlla day caaxaan na yu garaaw lépp ndax dul naa lis yi la dul naa lis yi ñooy toog jàkkaat ak yow mu xam da ngay fen ñu toog di la déglu di non mais suñu réew mi du réew booy moo tax ma ne la réew mi vrai dictateur moom moo koy defar mu kaaju sadik di daggate di këppati di rey di sànni di fosse commune di suul ba gars yi di gis ni kii rey na journaliste bu fi newoon journaliste ba waa ji rey na ko dem na daggate bopp kii saam ko seen buntu kër léegi ñu nekk nit parce que dëkk bi moo yàqu ay dëkk bu nit di jaay xam-xam di ñëw naan ay non da nga leen di daggate di këppati di di dagg seen xuur yi di waaye yow mais du ñu nit fan rek la ñuy def parce Amérique temps yi lañ commencé interview sax Amérique ñu dugg te interview mu ëpp fukki junni yoon ñu def interview ñu dugg jamono ji wax na sax jamono ji instant bii moo wax quinze jours yi mujj yi ñu si dugg te defuñu interview mu ëpp fukki junni yoon ñu def interview jamono ji ku ñëw ñu bàyyi la ku ñëw ñu bàyyi la ku ñëw ñu bàyyi la loolu dégg nga la ku xamul sax li na si biir yow yow si si kan nga jóge yóbbu la si kan xamoo dëkk bi ni mel nga taxaw di fen say fen nit ñi di ko gëm waaw gaynde gis nga ni mu demee noonu la waaw ñun xam nga bañ duggee cas bi nga xamante ne mooy Saint-Louis dañoo dugg Saint-Louis def nañ fa euh, une semaine ñu jël ñu dugal say oto yóbbu ñu aéroport ma gaay ma àndaloon bi ñëwee ba aéroport Louisiana Saint-Louis dañ jóge jël vol trois heures de temps egg Louisiana ñu séparé ñu nag sama yenn gaay ñu yóbbu leen euh, fi ñuy wax euh, Jackson mais man Mississippi laa nekkoon. si laa nekkoon def naa ko 27 jours ah, ah affaire moom xam nga rek gars yi fa nekkoon ñu bëri ñoom yàlla suturaal na leen ñu génn ñu si ëpp sax waxuñu ah. Mm-hmm. waaw ñu si ëpp waxuñu dañoo ñëw rek jox leen ay date rendez-vous ñenn olof moo amul dañ leen wax ne ñu dañuy def interview ñu wax leen ne olof amul bu ñëwee ñett yoon olof ñu bàyyi leen ñoom ñu dugg quoi am si ñoo xamante ne tey dañoo def interview wax seen histoire le tax ñu jóge Sénégal. xam nga tax ñu dugg dëgg la nag Amérique du Sénégal am na ñoo xamante ne euh, mën leen la neexee ñu ay góor jigéen la ñoom la concerné te man personnellement ñi nga xamante ne yàlla boole na ma ak ñoom foofu gis ma si koo xamante ne mbirum góor jigéen moo la dugal waaye gis ma si kenn koo xamante ne mbirum góor jigéen moo la dugal franchement gars yi def nañu interview dem ñu wax leen xam ñuy wax politique ñuy wax menace de mort et tout ñu bàyyi leen ñu dugg ma ne góor jigéen amul parce que am na ñoo xamante wax dëgg yàlla moom lañ jël mais loolu quatre vingt dix pour cent yi sax waxuñu waxaguñu comprendre nga donc ñu dugg man su ma suñ doon cent su góor jigéen benn moo ko jël te tamit bi dagalul billet doo ko wax li muy jël mi ngi noonu après nag jóge nañ si biir ah, dem bu ñu wax Louga dara ah, Louga dara def naa ba 33 jours bu ñu defee Louga dara 33 jours si lañ ñu fa jëlee yóbbu ñu fu ñuy wax Texas Texas nag moom une semaine rek lañ fa def ñu fa ñëw mardi. mercredi si guddi ñu jóge fa waaw mercredi si guddi ñu jóge fa pour ñëw Sénégal waaw affaire daal gaynde donc yéen a ngi dégg kii dañ koo delloo Sénégal la nekk di wax yéen a ngi dégg jàng yi atmosphère bi sax da ngay comprendre Sénégal la macha allah mais moom gis nga lu mu wax dëgg nee na même bu amee waxu góor jigéen 1 pour cent ak fa lu fa lu fa nekk yëpp rëcc nañ ñi posé wuñ leen sax question ku nekk sa wërsëg ñii laajuñu leen ñii gisuñu sax kii parce que parce que amul traducteur wolof ñu bàyyi leen ñu dem ñu war a gisante juge bi jox leen date loolu yëpp am na fa kenn dëkk waajaw ji dem di leen duulal ci kanamu sëñ bi naan ñoom ay jihadiste lañ dañoo xeex islam la ñuy xeexal bugg ñu wax góor mais gars yi mun nañ fan réew mi nag ngeen foog ne nii lañ ko mën a defaree ci ay fenekki kàcc kese Sénégal dañuy tàmm fen ba boo leen di wax sax dañ naan day fen ñun problème boobu lañ am ñun ñi di wax dëgg nii problème boobu lañ am ci réew mi mais man dama koy comprendre man bu may wax nii man dara tere dara taxumaay wax fen booy wëri dëgg laa la wax ñu fi bëri ay nokki day fen seen baay maa leen gën a nekk dëggu man dëgg moo ma rey te bu may tuut tànk ba léegi dóor bu ma mos dóor ndax dëggu moo tax. naa ci caaxaan lu ma la wax takkal téere suba da nga koy gis boobu ba léegi maa ngi wax ak sénégalais musul teñ tarfatal ay nii parce que man dëgg dëgg moom a ñor nekk ma ci caaxaan foo fooree mais dañoo mën a fen tàmb fen ba lu waaye wax ñu ne fen la loolu c'est sénégalais mun nañ fen tàmb lañ fen dund ci ay fen seen baay di leen fen seen yaay di leen fen seen nopp yi màgg ci ay fen ba luñ dégg foog ni fen la mais da nga leen di comprendre contextuellement ak psychologiquement mentalement que ñooñu dañoo maanaam dañ leen dañoo atteindre ci ay fen dañoo màggee ci ay fen ba lépp fen lañ ko jàppee bu ñu demee ba découvrir vérité bi xam ne da jàpp ni vérité fen la noonu la ñu mel moo tax Sénégal sur cent ñaare ci wax dëgg sur cent personnes ñaar ñoo ci wax dëgg dëkk bu ko xam ne quatre-vingt-dix pour cent lañ boo amee dix pour cent yi bu ñu waxee tamit duulkat yi dañ naan dañuy fen moo tax ci Sénégal kenn mënu fa wax dëgg ku fa wax dëgg ñu ne duulkat nga ndax dëkku duulkat la du duul di duul ba toog ak sëñ bi di fenn di sosalaate c'est du n'importe quoi sax. mi ngi noonu ñun moom wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla rek te xam ne li yàlla li mu def mooy li gën waaw mais nag gars yi rumeur yi ñuy def yooyu ay yàq dar la rek man moom ñu bis naa biñ ma xam ne yàlla jeexul. Euh, frère maa ngi lay ziar na nga toogee maa ngi jox sa wàccuwaay euh, man li may dégg li ma leen dëgg man jóge na Sénégal def yoon bi maximum sept jours à huit jours dugg si benn camp bu wax Saint-Louis bu duggee si benn camp bi wax Saint-Louis def naa fa trois jours ñu jël ma déplacé ma yóbbu ma wenn camp buy wax Mississippi maa ngi fa dugg samedi dimanche. lundi ma xëy def interview mardi ñu jox ma benn document si mardi bi laa jugee foofu dem benn camp bu wax euh, Win correction centre ma def fa benn fan ñu xëy bàyyi ma majeure partie bi dugg tax defuñu interview majeure partie bi duggu defuñu interview waaw affaire immigration nag sens la nit da ànd sax ak nit moom ngeen ñëw moom mu dugg te deful interview yooyu ñu defal loo interview ñooñu liy wax dara amu si daal amu si man ñu ma nekkaloon plus de six cent et quelques personnes gisuma ko si wax affaire góor jigéen gisuma ko gisuma ko si wax affaire religion dañoo pare pour yàq der rek ok. mën a fan kay. recevoir leen xam naa peut xaalis bi ñu joxe ñu def si yoon bi moo leen xaw a métti ñuy wër bëgg ndimbal wala dara tax ñu yàq der ñu si bari ñu xam ne xam naa dañoo bokkoon benn camp ñu si bari ñu si bari ñuy waa Touba lañ ñuy waa Dakar lañ ñii waa fu nekk am na fu ñu dëkk Kaolack. waaw majeure partie bi nag defuñu interview boo defee interview nag xamoo li ngay wax lu leer ñoom dañ la fay téye waaw. noonu rek la demee. mais gisuma ko wax mbirum ko jigéen bañ naa ay changer religion ñun ay musulman lañ te dara taxul ñu changer suñu religion. ñetti fan ñeent fan ni ñaakari si kan. benn fan ñaari fan ni ñaakari si kan dem seen yoon. vraiment. dugg naa Amérique. te yàgguma si kan bi. maximum def ma ay fan yu yàgg. di génn majeure partie bi gisuma ku ko wax góor boo compté cent cent personnes man mun naa la compté cent personnes yoo xam ne kenn waxu si góor jigéen am na ñi fi dugg bëri na ñoo xam ne kenn deful leen interview États-Unis AS mooy liggéey te AS moom noonu lu ko neex lay liggéey da ngay ànd ak nit ñu nekk dix personnes nga génn bàyyi leen fa man ñu ma fa ànd ñu si ban dama génn bàyyi leen fa loolu rek mais gisuma ko def góor jigéen daal fan njëriñ. Eh, Mawla naka ma am jàmm sinon waaw gis nga man man sax maa ngi woon ci job bi yaa ma gën a wax yàpp waaw dara yow après yow su la neexee sax mu ngi wax ak Mollah léegi moom moo man euh, yoon bi moom man gëm naa ne comme ñun ñëpp ni ñu fa jaaree rek amul kenn tey koo xam ne amul expérience ci yoon bi yaa am nañ ci expérience fekkee nañu lu bëri gis nañu lu bëri waaw euh, je ne sais pas nag mu nga ko jox sama numéro soo la neexee après moom su fekkee déggante nañu même su fekkee am na heure yu muy def laaj kii waaw laaj ak invite après man lu ma bëgg a xam ci yenn yi moom mun naa mun naa ko ci ñëwal de manière concrète parce que man yoon bi soo gisee man yàgg naa ci presque rare nga gis ku def presque un mois diggante ni ak ak ak ak ak bërën bi ak frontière bi donc bi ma génnee presque def naa tamit ci camp yi tuuti tu temps yi tamit bi ma fa nekkee comme ni nga doon translate rek gars yi di leen traduire ku nekk ci ñoom dalay wax histoire am ak lépp waa léegi naa ci cas dipot yi moom sérieusement des fois sax damay ragal dama ci bëgg wax sax de trop mais mun naa wax moom maîtriser naa trop trop trop trop lu tax ñu ñu dipot ñen ñu ci gën a bëri sax parce que daa am quatre cas rek quatre cas man li ma jàpp quatre cas yooyu ku ci nekk rek lu quatre cas yooyu moo tax ñu ñu ñu ñu dippoon yëpp ci quatre cas yooyu benn ci la ñuy jël waaw léegi moom su fekkente bëgg na genre euh, pour leeral sénégalais yi moom heure mu nekkee ci live mun naa ñëw même su fekkee benn cinq minutes wala dix minutes xaw ko e-, xaw a éclaircir yenn yi waaw parce que man am na ñu bëri ñu ngi dippoon sax balaa ñu leen di dippoon ci seen histoire bi ñu ko waxee muy loolu waaw ak yeneen ak yeneen am na nag ñoo xam ne joxe nañ histoire bu baax seen histoire bu baax ba lépp mais malheureusement peut-être dañu tombé ak officier boo xam ne bon bañal leen ba mu leen bañalee tamit euh, juge fédéral bi bañal leen malheureusement ñu ngi waaw however rek mun nga xam su bëggee rek indi say live ma jéem a nekk online après jéem a intervenir quoi en fait waaw allo baax mbokk yi waaw ñi nga xam ne dañ nekkoon ci camp ba nag doon dem ci États-Unis ñu dëpp leen léegi ñoom ñoom dañ leen dëpp ñu dem Sénégal jàkkaarloo xalifa bu Sénégal kulli murit daan ni ñun ñi ngi waxoon affaire góor jigéen ñu bañ ko ñun ñun xeexloo diine ñu bañ ko ñoo ngi nii dëpp nañ beneen xaaj bi dugg nañ bon beneen xaaj bi dugg nag ñoom ñoo doon jàng alxuraan yi ak kaamil yi bu baax a baax kenn mos ñun ko faa tere nu ñu neex la dañ koy jàng ca kaw nag di ko yëkkati def lu ñu neex bu te ne xeex lislaam tamit ña fa dugg te ne te te te te te nekkuñu musulman kenn xamul nu mu te ñen fa dëpp tamit te nekkuñu musulman kenn xamul nu mu toll nu mu toll kon nag lañ mooy problème bi waaye ah Sénégal dañ xam ne lépp benn. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi leen di ziar Maxtaar Mbow Baye Fall bi taal bi Serigne Touba ah Baye Fall Baye Fall yow day fekkoon Baye Fall nga doo yàq nii waaye nag loolu yëpp garawut mais nag lañ leen a bëgg a xamal ni dem ngeen ci site site internet yépp def lu leen neex wax lu leen neex jàpp nag ñun dañoo amul fu ñu waxee am nañ fa ñu waxee am nañ opportunité fu ñu waxee te dañuy wax parce que weddi du ragal mais seetal sab der la parce que yéen da a taxaw daat ni ñi nga xam ne ñoo nangoo jigéen ñoo dugg ñi nga xamante ni maanaam ñoo ñoo ñoo ñoo bañ a xeex lislaam ñoo ñi nga ñi nga ñi nga xamante ni maanaam ñi nga xamante ni ñooy xeex lislaam ak di nangu góor jigéen ñoo dugg ñi ko nanguwul ñoom ñoo ñëw dem ba ci kanam xalifa ba sëñ Muntaxa wax ko ma di leen waxal leen ni loolu amul parce que loolu bu fekkoonte ni loolu lu am la ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal muy américain yi ñoom forcé kenn ci dara forcé kenn ci dara parce que ñun ñu doon fay jàng alxuraan dafa yëkk yëkkati xasaayit jamonoy màggal gi foo tool di ko dañ koy yëkkati ca kaw. Ah, mais non ñi mun nañ fen ko Amérique nga xam ne liberté bu fa am ak Canada fépp am ay juma am ay jàkka am lu ne ñuy dem di fen di wa ay wax ay diine non mais <laughs> diine Sénégal lañ koy xeexee diine kenn xeexee ko Amérique senegal la ñuy xeexee diine fa la ñuy sosalee diine fa la ñuy fenelee diine yàlla moo gën a néew doole Sénégal. yàlla amul kenn ku ko fay teewal dañ koy saaga dañ koy toroxal moom ak profetam dañ leen di wax lu leen neex di dox seeni soxla koo fi laal sëriñam ñu taal sab kër koo fi laal ñu saaga la koo fi laal sëriñam ñu song la sëriñ yi ñooy kumba ak kër diine ñooy kumba am ndey yàlla ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooy kumba amul ndey ñoom kenn teewul leen fa dañ fay sukuraat dañ leen fay wax lu ne lu ñaaw lu ne lañ leen di wax président ba buy yeewoo sosal leen jiiñ leen ay terroriste jiiñ leen ay affaire u euh, nu mu tëddi jihadiste ak jiiñ leen ne sosal leen loolu yëpp ci diine diine moo gën a sonn fii tarixa yi lañ protégé ku laal dee ku wax dee ku ñëw gaa yëpp seen bakkan lañ teg ci tarixa yi faale wuñ yàlla lijjante wuñ ko moo tax moo ci gën a sonn yàlla gën a sonn luñ koy wax ci Sénégal ak luñ ko fay yàq bu ko bu ko delloo moo tax mu ngi koy delloo Sénégal sax moo tax ñoo gën a torox amuñu dara lekkuñu naanuñu torox ay njiit yu bon di leen jiite parce yàlla xam na de il est juste et boo koy toroxal mu lay delloo affaire bi boo koy boo boo ko dul sàmm doo ko protéger fii la ñëw ñu télé yi di ko di wane benn fenkat boo xam ne Cheikh Ahmed Cissé di saaga yàlla di ko wax lu ñaaw di ko jiñ ay théâtre ay fël-falaale ay lu ne te noonu la doxee soxlaam na na na na na boog sax Ahmed Cissé génnoon ne xasida Serigne Touba ay fël falaala la du tus ay fël falaala ay caaxaan billahi bàyyi taal kër kër baayam ak kër yaayam bu ko waxoon li mu wax ci kaamil bu ko waxoon ci Serigne Touba waxum wax ci Alaaji Maalik gars yi dañu dem taal kër baayam taal kër yaayam kon du génn di daw kon dañ koy rey <laughs> mais yàlla la ko wax moo tax gars yi bàyyi ko muy taxawaal ba mu neex ko mu génn dox ñëw di def ay live di saagawaat yàlla yàlla amul benn représentant Sénégal de ak a sonn foofu. loolu yëpp garawut mais nag lañ la bëgg a xamal ni dem ngeen ci site site internet yépp def lu leen neex wax lu leen neex jàpp nag ñun dañoo amul fu ñu waxee am nañ fu ñu waxee am nañ opportunité fu ñu waxee te dañuy wax parce que weddi du ragal mais seetal sab der la parce que yéen da ngeen a taxaw daat ni. ñi nga xam ne ñoo nangoo jigéen ñoo dugg ñi nga xamante ni maanaam ñoo ñoo ñoo ñoo bañ a xeex lislaam ñoo ñi nga ñi nga xamante ni maanaam ñi nga xamante ni ñooy xeex lislaam ak di nangu góor jigéen ñoo dugg ñi ko nanguwul ñoom ñoo ñëw dem ba ci kanam xalifa ba sëñ Muntaxa wax ko man di leen waxal leen ni loolu amul parce que loolu bu fekkoonte ni loolu lu am la ñi nga xamante ni ñoom lañ ñàkkal muy américain yi ñoom forcé wuñ kenn ci dara forcé wuñ kenn ci dara parce que ñun ñu ngi doon fay jàng alxuraan dafa yëkkati xasaayat jamonoy màggal gi xes day foo tool di ko dégg dañ koy yëkkati ca kaw te ayi wuñ la ko ngay jàng alxuraan ca kaw ay taalibi Serigne Touba taalibi maam Liwaa taalibi Baay Laay Ñaseen Xaadir Laayeen maam Maalik Alaaji Maalik ñëpp ànd jaxasoo fa penku bi sax boo ko xamul ñoo ñëw seen jël seen téléphone yi réglé la ko ni la penku baa ngi nii wallahi asi wa rabbatul kaaba li may wax nii bu dul dëgg yàlla bu ma yàlla may ci dëkk bi ut dara ñoom forcé wuñ la ci dara soxlawuñ dara lu dul ñoom dañu leen dañ ñoom ñoom képp koo xam da ngaa dawe sa dëkk am nañ droit fat la dana la wax li tax nag ñu fat la yaay wax li nga xamante ne nag moo tax ñu fat la mais bon loolu du nekkul ni góor jigéen képp moo fa moom moo nga mën a wax dugg leneen leen na nga fa mais nan bàyyi yàq der te man ñi doon yàq der ñëpp ñoom ña nga doon jàng alxuraan ji ak xasida yi ba pare am yaakaar dañuy dugg kon dëpp nañ leen nañ nañ nañ gore nañ gore ñun nag danañ am fu ñu waxee te am c'est que yi sax ñoo sonal seen bopp te waaye boo fekkee ne da naan góor jigéen nga pour jàll pour am sa këyit lijjanti sa bopp def ko on s'en senegal Sénégal gars yi dañuy sàcc di dem di tabax di tabax ay barabu sëriñ gis nañ ko fi ku sàcc alalu Sénégal doon milliardaire dem tabax bara bu sëriñ dem defar ko ay def ci or def ci la te ñëpp xam ne ni sàcc la daw dem Amérique Macky Sall di ko mu daw dem Amérique gis nañ ko Sénégal gis nañ ay jaaykatu drogue yuy ñëw di investir ci kër diine yi gis nañ ko ay tabax ay barabu sëriñ di jaaykatu drogue di ay sàcc loolu sorul sax ay expliqué demal nga ne ko góor jigéen laa et après on s'en fout da nga lijjanti sa bopp nga lijjanti sa këyit dem sa daf la def góor jigéen góor jigéen laa daf la def góor jigéen et après gaa yaa ngi fële di sàcc fii di jaay drogue ak di tëddee caga di def proxénétisme di ko yóbbu Sénégal di ci financé di am na ñu ci defar jàkk ñu ci defar juma waaw dem leen laaj Ablaye Sylla ñaata milliards la sàcc buñ ko daqee fu mu daw Amérique la daw <laughs> bare bu sëriñ la tabax def ci or def ci lu ne te addunam yëpp sàcc la bu la ñu fontoo waaye yéen nekk fii sax di expliquer xaaral ma may la nga kii après ñu ñu continuer man man am na yeneen yu may wax parce que yéen am jot sax dafa ñëwee naa ay eh, non dafa daaw a góor jigéen maa tay góor jigéen après mooy lijjanti pour góor jigéen nag wala bu ma góor jigéen la eh, après def góor jigéen. ngay lijjanti sa bopp lijjanti sa këyit benn ñu wax góor jigéen dóor sa yaa expliqué ñu jox la sa këyit nga dem sa yoon kan dal kenn dalaa juutal wala nga juutal keneen waaye ay waxi golo la ñuy wax Sénégal quoi du dëkk boo xam ne day dox comme taat dellu ginnaaw rek lay def dëkk bu du avancé. gars yi hypocrite mun a fen sos soxor dëkk boobu du dem sarab ndayam fen la dul dem te damaa bëgg ngeen xam nag mataan boobu mii nekk di wax ak yéen dañu ko teg gone mais xartug Mollah Morgun la dina jot ci lii Mollah dina ci jot te Mollah ci jotee maam dina génn wax ak ñi nga xamante ni ñoom am nañu nopp di dégg parce que ñun amuñu amuñu niveau suñ wax fël mais Mollah moom am na niveau boo xam ne bis bu génnee àdduna dinañ ko dégg te moom lii dëgg ji rek lay wax lii dëgg ji lay wax ñun ay julit lañ ay taalibe lañ nekk di daane suñ doole moo ñu tax a jóg yenn tànki caaxaan ndoxu ñoo jóg Sénégal lañ fa nekkoon ñun ñëpp xam nañ ko kon buñ yàqante ñi dugg ak ñi dëpp góor jigéen amu ci ku doon koy dund xanaa du ba nga juddoo ba léegi di ko commencé dund mais jékki-jékki ba ñëw États-Unis rek bëgg ni damay dund lool loolu wurtu mën na nekk te lu wax day rafet bàyyi leen ñii ngeen saboté américains yi forcé wuñ kenn ci dara forcé wuñ la ci dara kenn ku nekk la nga bëgg doon da koy doon bu waxtu julli jot jotee daan daan daan jug julli ñun ñëpp jàpp ba set julli ñun ñëpp ñoom ñooy ñëw régler seen téléphone daal di côté bii ngeen di féete ñuy jàng alxuraan di jàng xasida wàcc fa kaamil yu bari ay ayiwuñu ko dara yi daan dara bi naan daal daan julli barkeb alxuraanu karim am na jour boo xam ne officier bi daa ñëw comprendre ni mu demee wallahi laasim ak war rabatul kaaba officier bi mu ñëwee daal di jël sëri gaa yi ko dañ ciy julli expliqué ko ne ko yàlla lañ ci jaamu daa ñëw renforcé waat yére yi kii bi daraa yi jox ñu daraa yu bari jox ñu daraa yu baree baree baree bari ñu julli waxtu jot ñu julli kenn forcé wuñu ci dara boo feebaree ñu faj la forcé wuñ la ci góor jigéen forcé wuñ ci wedd sa diine kon nag nit dangay ngay wax ju rafet lii nag incha allah rabbi dama ne woon dinaa ko def tam moo laa dina jot bu jotee moom moom ëpp kàddu dina génn wax ci. ñu ngi noonu donc gars yi yéen a ko gisandoo waa ñi dem ci Nicaragua gi lu tax ma may leen temps d'audience bi parce que dañu am lu leen metti parce que dafa naqari ay nit yuy fen di wër ci kër diine yi di taxawaaloo ko di wax du n'importe quoi ay fen baaxut ay fen baaxut doo am ndam doo am li nga bëgg soxor baaxut Sénégal soxoroo ko tardeel soxor moo ko tardeel ak ay fen ku soxorul da fen ku fenul yaa ngi soxor iñaan yàq dar du ñu wax dëgg boo leen waxee dëgg sax ñu ne non dafa soxor dëgg dafa am solo Amérique kañ la am ay ñuy tere ay diine kañ la immigration am ñu la waxal góor jigéen nga kañ la immigration am loolu xanaa loolu ay ay sénégalais ñoo fa ñooy taxaw américain dina tax naa la waxal góor jigéen nga wala waxal ni doo musulman chrétien nga <laughs> mais gars yi mun nañ fan nag de ñii ambassade États-Unis bu nekk Sénégal ñoo leen war a porter plainte voilà ambassade bu États-Unis bu nekk Sénégal dañoo war porte porter plainte fenkat yi ñi ngi sosal Amérique du duulal Amérique di fenal Amérique parce que ñi ngi wër di fen bay dem ci xalif bi di fen naan ay ñoom ay diine lañ doon sàmm ak kenn xamul bon voilà kon Baye Fall bàyyi fen ak sa délégation bàyyi leen kàcc bàyyi leen fen gën a duul trop ñi ñoo leen ëpp diine foofu ñi ñoo leen gët yaa ngi dégg mu naan bu ñuy julli sax kooku moo leen ñëw yokkal ay kii nekkaa leen julli fii xam ngeen tubaab bi ci ay affaire ci ci ay affaire droits humains tubaab du fowee droits humains Sénégal la ñuy tëral nit yi di rendi di daggate di këppati nga koy gis di jam ay nit di di di di fakkat di jël François Manka bu dóor ko ci ay gri ba mu sedd guy loolu Sénégal la jël Didier Badji daggate ko seyal ko loolu Sénégal la jël Fulbert Sambou daggate ko këppati ko un morceau sànni ko digg géej loolu Sénégal la te ñu koy def noonu dañ ne ay jullit lañ